gidan aadini te amoon nañ ko boobu noonu nañ ko corriger ñu fexe ba élection bii fi taxaw nekk suñu kanam ñu wane ne tey Sénégal lii de amoon na waaye fii lañ koy corriger li nga xam ne ni tey mooy le chef de l'opposition sénégalais yi jox ko baat réew mi mu téye ko assemblée ànd ak moom ba élection yi kañ lay doon parce que mun naa bañ leen cinquante yi daf ñu atum réew mi cinquante dëgg la

bi may campagne monsieur le président am ay formules yu may utiliser ay formules imagées pour di capter attention bi ñuy campagne dafa doon wax ne réew mi waruñu ko jël ci jàng dawal. Uh-huh. dañ koy jël a dawal. sa la ku am permis. Uh-huh. am solo tey bi embarcadère jën gore fekk benn waaye bi rek a dawal yàgg dawal nga koy dégg. Uh-huh. da ngay xam ne sa bakkan da nga am koo koy dégg bu mhm. koy dégg rek koo doon war a mën di am qualité te yàlla dogal qualité yi yëpp maanaam dajale ci yow mhm. yàlla suñu borom mooy sédde te jaam dafa war a nangu dogal li mhm. nga mel defoo ko sa bopp yàlla mooy ci la ko def ñëpp ñu war ko nangu te jàppale la xam ne njëriñu Sénégal tey du looy xëcc yow déedéet ñun ñoo soxla waaw soxla nga toog ci bopp réew mi ndax yow dimbali réew mi leneen keneen ku ko jox gis nañ résultat baa ngi nii réew mi day gën a nekkaat mhm. jafe-jafe dëgg la gars yi kon ñoo ko déggandoo <laughs> mu mel ne équipe bu ma yi célibataire yi neen pare nañ kon nag ñun marié yi lawoon fa woon amadou ba nag yow yow laay waxal man ak dof yi nga xam ne ay mbayaan rek lan lay def pour am dara man ak ñoom yow Amadou Ba xam nga bu baax kuy Sonko xam nga bu baax ñi patriote yow Amadou Ba xam nga li ma la ñi attanu réew mi waye ñom lañ jox rew mi yeen ñi attan réew mi dem leen ba ciaga ja to xaar te du ngeen gis fofu kenn ku leen jox ab kàtte waxuma la yeen maire yi ngeen yoro ko si néew sax lañ soxla ñun ñun waxatu ñu waxe rew mi de il faut ngeen di waxante deug nak yeen seen biir te ngeen bayyi seen jaayante bu metti bi Amadou Ba mi nga xamé ne kër gu mag sax mënu ko yor waxuma la ko rew parce que Amadou Ba wax ju sew ko gënal wax ju ju ju ju reuy wax ju sew rek la amadou ba bëgg ay polémique ay diaboliser rek la amadou ba bëgg fekk ñaan ñuy and nga neexal kenn ka xaas mu dal ci kaw ka ca rek la amadou ba bëgg amadou ba mii mënta yor ak ba yorum rew noppal leen seen bop dimbali leen seen bop amadou ba sa xaalis bi kanal ko class gi dina ngaj dan eh, sàcc sa xaalis bepp lek ko baale nga tocc tocc rek abadan do nek président rew sénégal yow abadan yow amadou ba da nga jeexal tak yow APR gi nga yaakaaroon ñooñu sa ginnaw bi nekkee sa ginnaw dara amu asma bi nga xamee ne APR génn nañ ci yow yow amo parti kenn xamul lo yor yow Amadou Ba waaye nooy gañam rew rew mi patriote yoo yor yeen ay équipe équipe yi cogoñ cagañ ngeen compétition mënu leen ko parce que amu leen fit am ngeen xaar mais amu leen fit ba pare du ngeen wax kati deug kon ñeen nun leen di joxe rew kon nak li signal fort la ci yeen patriote yi ngeen wacc te leen xam ne nag jub jot na fa won bàcc baccat do dorat ñam ñamat xam nga lima la wax yokk cere dolli ñeex équipe bu célibataire yi ñii ñii wax dëgg yàlla yaakaar naa ñun wër ñoo dayoom nga lax ko nan demee woon ak ñoom présidentielles yi rek lañ koy defewaat présidentielles yi sàcc ngeen a sàcc sàcc sàcc ba doyal waaye gisu leen jomaay fenn te na ngeen xam ne nag jomaay jomaay ngeen jàmmaar looloon biir yoon président Sonko ngeen di jàmmaar lool waaw mooy ngeen di jàmmaar lool mu yor mooy ya ngeen yoroon jaar fi ngeen ko daan interdit campagne te nii ngeen defoon campagne yi sàcc ko ba defal ñu ko fukki fan ak juróom bii du doon lool de day mat fekk insha allahu rabbi yow Amadou Ba moom bay boo nga naan doomi doucement yow wéroo wéraanoo beneen bi ci topp mooy kenn daa xamul loo bëgg demal toog dallu sa booy yii nga dimbali ñu si ñoom ay waay yéen a ñàkk jom